dal leen ak jàmm mbokk internet yi kawtee fa am jamono day dox nit ñi di soppi seen doxalin ku ne di yootu bëgg dem fu kawe ba tax ab tekkatu dil dóorkatu marto bu rëy daal di jël darajaam yokku ko yëkkati ko ba ci kaw def boppam ab kat waaw faux procureur lu doy waar waa ji di M Diouf dafay mbuboo turu procureur Saliou Ngom bu tribunal hors classe de Dakar ngir mën a teg dil ak nax doomu aadama yi lekk seen xaalis waaye mu mel na dalu ci ndax bi lay yoon laal na ba laal laalaakee ku ko feeñal ab dal di lekk xaalisam ginnaaw gi nga xamante dafa waxoon ne daf koy jaay ab terrain foofu le ca Lagrose suñuy naataangooy journal Les Échos nettali nañ dëgg-dëgg mbir mi naka la demee ak naka la Diouf le faux procureur doon def ngir mën a lekk xaalisu nit ñi ci turu procureur Saliou Ngom Diouf le faux procureur ak Diallo émigré ñu ngi xamante ci weeru avril bi ñu weesu ci seen biiri waxtaan Diouf le faux procureur daal di koy xamal ne moom ab procureur la buy wuyoo ci turu Saliou Ngom ñu ne déeta mu daal di proposé Diallo émigré ne daf koy jaay ab terrain bu féetee foofu le ca Lagrose Diallo daal di nangu waaye itam nekkoon ko na ko yóbbu foofu foofule ngir mu mën a xam fan la terrain bi nekk ak naka la mel Diouf la faux procureur mi nga xamante ne foo ko fekk ma ngay solu ba yanj jëmal kilifteef làmmiñ bu neex ak damar bu yanj daal di woo ab boobu boobule policier dal di firndeel ne xam na ki nga xamante ne moom mooy kilee di procureur Saliou Ngom mi mu doon ndax ci boobule tur ci la ko présenté boppam ci ab bés boo xamante ne ki lay di police bi daf ko arrêté woon ci kaw tali bi ngir ab jàdd gu mu jàddoon yoon waaye nag moom Diouf la faux procureur dafa présenté wu comme nekk procureur Saliou ngoom ñu ne deeta waaye mu daal di dig police ba ab terrain foofu le ca Lac Rose comme ni mu ko defee ak ki nga xamante ne moom mooy jàllu immigré ca noonu ca la nas ab plangam ba mu normal yee way samba ndaw xel mu ñaw Diouf la faux procureur jox leen di daje ñoom ñaar ñëpp waaye ndekete yoo lam ja jublu woon mooy gën leen a mën a dóori màtto ànd faak policier ba ngir gën a mën a nax ki nga xamante ne moom mooy jàll immigré ndax mu gëm dëgg-dëgg ne moom miilee nit ku jub la waaye ñëw policier ba du lenn lu dul ab sunguf soo xamante ne nii moom la façon na yéene sëlëm ki nga xamante ne moom mooy jàllo immigré ba jàllo immigré gisee policier ba ñëw foofu ànd ak moom ci la jàpp ne kat woy takk der bu duggee ci mbir mi mel na ni mbir mi lu leer la daal di yëkkati kóolute ma jox ko Juuf la faux procureur ñu ne déeta waaye mu yëkkati ca saasa lu tolloo ko huit cent cinquante mille francs CFA ak juróom fukk ci suñu xaalis teg ko ci loxo yi Juuf la faux procureur Juuf ne yolmet xaalis ba dugal ca poosam ba pare daal di koy joxaat beneen dig daje ndekete yoo ca bés boobu ca la ko jàll immigré di gëj a tegaat bët Juuf la faux procureur daal di koy réer mër ci biir réew mi ba keroog ci alxamis ji ñu weesu ca la jàllo immigré dajeeg moom foofu la ca Grand Yoff ci circulation bi mu yore ab daamoor gu yànj di ko dawal jàllo immigré dal di koy seen jege si xool ko xoolaat ko seet ko ba seetantal ko xam ne kii sama la ci ñenn ñu fa nekkoon yóbbu ko dal di koy jébbal police bu caaroy waaw waaw tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg-yàgg daje rek ci xibaar yi ñu mujj a jot nag ki nga xamante ne moom mooy Diouf la faux procureur jot nañ koo defeere ca kanamu procureur bu Pikine Géejawaay ginnaaw si nga xam ne moom Diouf la faux jot naa nangu ne liñ koy toppee yépp moo ko def waaw waaw noonu la teel a nangu moom day gàttal jël da ngay jaay mën a dóor rek marto procureur bi dal na sa kaw jërë ngeen jëf